salaat lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absa wa safar salaat lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absa wa safar salaat في كل سير وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه mangoog mbokku téléspectateur internet télévision ma faatixul Bichri comme nañ leen ko wax rek fas yéene leen dégtal lépp lu nga xamante ne temps fort la ci lépp lu jëm ci wàccaayu màggal gi nga xam moom la ñuy dëgmal nit ki fukki fan ak juróom-ñett weeru safar ci noonu nag ñu nekk ci wetu juma ji ci mbedd mi nga xamante ni moo di miiru sëñ Abdou Lahat te bu ñu ko tuddee rek xel dafay daal di dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykatu kurus yi jaaykatu xasida yi jaaykatu maxtum yi jaaykatu lépp lu nga xamante ni rek baaxoo woon nañ ko ràññee ko ci yoonu murid waaye ràññee ko ci li nga xamante ni moo di yoonu umma islamique bi nag ñoo ko gisandoo ci dem ak dikk lañ fi fekk maanaam jaaykat yi nekk di def ay installation teg seen ay bagage maanaam nekk ci lépp lu nga xamante ni moom moo di wàccaay màgg loolu la muy undu nag mooy wax ni maanaam fii ci Touba dafa mel ni rek nit ñi ñi ngi dund li nga xam ne moom moo di waccaay màggal gi rawatina li nga xamante ni ñoom ñooy jaaykatu xasida yi jaaykatu maxtum yi jaaykatu kurus yi ci noonu xam naa dañu daal di jël micro bi rek jox ko ñenn ci jaaykat yi ñoom itam ñu daal di àddu wax ñu kat ci activité yi leen fekk naka la fas yéenee taxawee ci li nga xam ne moom moo di màggal gi gi rawatina nag ak nawet bii nga xamante ni ci la nekk. waaw dañoo nekk ci ay rangel di defaraat bagage yi pour mën a avancer dem ci kanam ba dundal màggal gi bu jeexee incha allah mu areeraat incha allah. waa waajal nañ ko baax ndax wut nañ ay bâche wut ay toile yoo xamante ni bu dee taw rek ñu gaaw muur bagage ndax xam nañ ne màggal Tuubaa ren dafa tombeek nawet. man maa ngi tudd Oustaz Mourtada Diagne euh, di euh, yëngu fii ci jumaa ji. di jaay ay xasida xeet lépp loo xam ne nii euh, taalibe yi yittewoo na ko lu mel ni kurus yeeg ak xeet yoo xam ne ñu ngi ci biir ay téere fànni téere yu ne téere xam-xam ak xeeti téere yëpp ngi ngi ñu yor fii soxna si ah, waaw ñu waaw lii nag ñun yàgg nañ fi nag dañoo gën a àndu si nii rek mais ñun ñu ngi fare ci miir bi nii rek waaw ñun ñu ngi fi nekkoon ci ndigalu sëñ mun Muntaxa ndax am na toll na jamono joo xam ne xawoon nañ ñoo xatal lool lool waaye biñ demee ci moom ah, la ñu wax ni lépp loo xam ne sunu nangu noon ko fa rek ngeen bàyyi ko fa te lu mel ni alxuraan ay kurus yi lu sunna nangu la lu dëkk bi nangu la donte sax jege ñu jumaa ji ba gën koo jege waaye fii rek dina fésal ni euh, jumaa ji lii rek moo fi mar a nekk mbokk yi lii moo doon aslëf ci yenn ci ay temps fort ci anam bi nga xamante ni mbokku taalibe ñi ngi koy waajale maanaam màggal gi maanaam di def ay installation rawatina ñi nu fekk fi nga xamante ni ñoo sos woon rëkk ci miiru sëñ Abdou Lahat bi jàkkaarloo li nga xamante ni moom moo di jumaa ji xam naa rek euh, ci kanam incha allah ci beneen reportage daañu dikk nag jox leen maanaam suñu micro ñu wax ñu nag ana fan la njaay mi dëgg dëgg dëgg toll rawatina ci digg màggal gi nga xamante ni fa lañ fas yéene nekk. في كل سار وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر صلاة الذي في كل سار وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر صلاة في كل سير وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر السفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه